Bantamba ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte ñëwaat ci émission làmb xam ngeen ni dugg nañu ci weer woo xamante ne nii e weeru afril lañ koy wax te weeru avril séentu woon nañu ci mbokki Bantamba que làmb dina ci am jéego jéego bi li taxoon ñu njort ko ci mooy liiwoon ci réew mi fan yii yëpp mu nekkoon tànn tànn boo xamante ne nii njiitu réew lañu waroon a tànn yàlla def na ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall doon ñeenteelu président de la République bu Sénégal mu doon xew-xew bu mag boo xamante ne ni àdduna bi yëpp gis nañu ni nga xamante ni noonu la tëddee yaakaar naa ni le Sénégal fait partie les des pays les plus démocratiques au monde loolu kenn dootu ko werante ndaxte ni nii tànn njiitu réew ca Amérique ca France ca Allemagne ci réew yi ñuy woowee réewu démocratie yaakaar naa ne Sénégal noonu la mel tey jii war nañ ko fa di fa mën di ko fa tudd et ba tax na ñi ngi ndokkeel ñi ngi sargal le président Abdoulaye Wade e, ci nongu gi mu nongu ndaxte Afrique loolu bariwu fi woon yenn saa yi da nga daan gañe nit mu ne kenn gañewuma te tey jii yaakaar naa ni Sénégal wane na boppam ñu ndokkeel bu baax la président Macky Sall di ko ñaanal yàlla na am ndam ci liggéey bi mu war a liggéeyal Sénégal te xam ni ndaw ñaa ngi fi ñun nag wàllu wi nu féete làmb la te lu toll ci juróomi junni juróom benn junni ci ndaw yoo xamante ni nii ñi ngi fi te yaakaaruñu dara lu dul bëri loolu na ci président Macky Sall bàyyi xel mbokk yi àllarba xam ngeen ni Ndefleng moo aye fii ci Ndakaaru Ndefleng jël drapo Mansour Kama baaxoo ko at mu jot ñeenti fan ci weeru avril ñu def ko sargale ko Mansour Kama ki mbokkam ak taxawaay bi nga xam ne moom la am ci askan bi rawatina askanu séeréer cay maamam la woon ba tey jii mu koy dox te amul dara loo xamante ni nii bana ko ci ba tax na Mbañik Njaay ak Ndefleng gi mu àndal ñooñu ñëpp ñu ne nag ñeenti fan ci weeru avril ña nga ci stade Iba Mar Diop ca terrain bu mag ba nan ka daan defee at mu jot renet ñu fas yéene cee dikkaat te teg nañ ci lu toll ci ñetti million te kiy gàddu ndam li dina fa am million ak lu toll ci juróom benn ba juróom-ñetti téeméer ci junni yaakaar naa ni loolu am na solo kon làmb jooju mi ngi foofu tey xam ngeen ni ëllëg cees lan jëm àllarba xam ngeen ni cees làmb ju mag ma nga fa diggante Forza ak Pakala ak xale ya nga xam ñoo fa bara bëre yëpp ñu leen fay séentu mu di tournoi cliff bi nga xamante ne nii Luc Nicolas tàmbale na ko te it la fay jeexal coow la mooy diggante Balla Gaye mu doon seen jàkkaarloo bu njëkk mbokk yi kon dinañu ñëw it stade Iba Mar xam ngeen ni Moustapha Gueye li mu def rëy na Moustapha Gueye fës na yéene mu keroog mu wone làmb ju neex diggante Malal ak Cheikhou Diène ak lafa feeñ ci xale lafa fa bëre la fa xew ci làmb la fa xew ci événement la xew ci lépp loo xamante jëm na ci cosaan yaakaar naa ne loolu lépp dinañ ko xool ci biir Bantamba loolu yëpp mi ngi ci mbokk yi bu soobee yàlla bu leen fàtte na xam ngeen ni le 6 Pape Abdou Fall moom it stade Iba Mar Diop semi nocturne la fa woote mu doon diggante Mame Balla ak Papis Général ak xale yi nga xamante ñoo ci war a bëri yëpp loolu stade ba Mar Diop la bu leen fàtte it bu soobee yàlla neuf ñu nga jëm stade Demba Diop Aziz Ndiaye taxawal fa booy Niang ak Double Less numéro 2 loolu mooy làmb yi nga xamante ne nii bu soobee yàlla 2STV dina taxaw ci won leen ko lépp loo xam ne war na faa am di ngeen ko yëg waaye mbokk yi balaa ñoo dem ci diggante Mamballa ak papi général naka la ñu waajale seen combat dinañ ñëw ci lépp loo xam jëm na ci làmb waaye nañ leen dem stade Iba Mar Diop xooli Moustapha Gueye mi tëggoon làmb ju mag ji tuddee ko ki nga xamante ne nii eh, ci tëggoon làmb ju mag di mu di làmb ju mag joo xam ne Sénégal gépp ko bokk yaakaar naa diggante Cheikhou jéen ak Malal Ndiaye nañ leen dem Iba Mar Diop Bantamba ak 2STV daan doo xeex bu bëggee xeex ñu xeex bu bëggee ñu bëri su ma ko jàpp di ko daan waxuñ loolu loo indi yow loo indi loo indi bëree rek bëree rek laa indi jàpp ko daan ko ñibbi doo xeex yow non du ma xeex ndax damay bëri ak moom waaw ah. ah. loo indi lu waaj daan rek ci kàttanu daan rek bu wala xeex bu laajee xeex ma xeex bu laajee bëri ma bëri nee na doo xeex ñeme woo moom moo ko ñimoon wax rek bilaay walaay du a man daal suñu faam day ñëw moom day a nappee non waaye dafa ragal dafa ragal xam nga ko ragal lay ñëw di topp di tapas. Ah. dafa ay tapas ko ay tapas. yow loo man taxumaa jóg du moom. nekkoo ci tapas. dafa tuuti ci xumay côté dafa tuuti maay le vrai des vrai. le vrai tigre Tapha le vrai le vrai tigre la nii loo wër mu ngi fii. maa la ko wax après di nga gis résultat. di nga gis résultat. di nga wéyale. ma ne di nga gis résultat. di nga njiit ma ne di nga gis résultat. Ah, wax bu ko laasé. daal non dama ne fes dama ne sama instis rek. lan nga indaaleel waaj laa say laa xumal daal lay de. lan nga indil waaj. ah damay ñaan yàlla suñu borom rek mu sutaanal may ma ndam. mais moom nee moom yooyu wax ko moom nee na da lay dóor nga taal. est-ce que mën na ko. mën na ko kay mënu ko. loolu la wax ko. mënu ko bàyyi naa lépp si loxoy yàlla. loo koy ah, ma si di am jot. li ma toog nii sama mbër moo war a bëre Automax moo war a ak limousine te koy daan bu soobee yàlla. Automax ak ak limousine. limousine bi gudd na de. non li gudd na mais Automax moo ko moo ko obstaclé xoolal degré bi sax duñu benn da koy tànn. Agra mbër na ma si yow. waaw. nee na da lay dóor dóor ah? ko fële. ah ko mën a dee. est-ce que di mbot. après ngay comprendre. Ah, lépp laay def di nga galgal yow. xoolal ma fii def. di nga ko def. non ko lem sànni ko fële laa grand ak lan. Fils de Bécaye bàyyi ba si kanam. ak lan. Fils de Bécaye bàyyi ba si kanam. Oh, wax ma rek loo ak lan. mbokk yi at bi bi na ci diggante Birahim Junior ak Ngisali dóor na léegi léegi Birahim Junior moo féete seen càmmoñ Ngisali moo nekk seen ndeyjoor Ngisali dóoraat na Ngisali daw na Sonko Birahim Junior bañ na Ngisali daan na Birahim jël bu gaaw jël bi gaaw na. Macky Sall mi ngi nekk école de lutte les Tigres moo daan Birahim Junior. lu tax barki borom Touba Mbacke nii la mënoon demee. tax sama yaay dafa maa ñaanal bay jooy may jooy man tamit. da sama gars la añee ne ma xoolal kii benn coup dem daw jël ko mu jeex. da nga indi xeex ah? maa ngi sant Baye Sow jàpp na si combat bi Baye Sow billahi wallahi xuudu jàppale nañ ma waa Fass yëmbal buun waa Fora waa jaamu gën góor yàlla yi ma leen di joxaale Ibrahima boro da faaj cantam la kaat la mercredi nag góor yàlla yëpp teew Baye Daaru yëpp maa ngi bëggee waa parcelle arbitre bi sifflé na diggante Mapol mooy deuxième combat bi ak Fifty Cents Mapol a ngi dóor Mapol a ngi dóor lambi Moustapha Gueye war naa bara bari galgal war naa bari dóor li mu mënoon lépp war naa am ci làmbam ma pool ci génne ma pool oh ma pool tuuti daan na la ma pool yaakaarul woon am na ma pool loo foogul woon am na làmba ngi nii ma pool santal yàlla bi mu doolee ñëw tey bi jël bi ñëwee tey ndax nga war a mën a jàngaat lu bari ci làmb nga jàngaat lu bari oh làmba ngi noonu bisa ku bëree gis ko ñu lëng la génne la ne la muñal ku bëree gis ko. yaa xam te daanu la nga fo. oh garaaw defet moo ñëw rek defet moo. Ama Baldé. defet moo ñëw waaw. waaw waa ji ni ma bëree moom mooy yomb na quoi parce que signature bi lu leen la doon wax. signature bi da doon wax lu ne xam naa ne maa ko man su ma ko jàppee dama koy daan mooy bërëx moom dafa ma doon jéem a taf pour jéem maa mbot xam nga bi may jéem a mbot ma jox ko wet ma jox ko sama biir ba mu dugal ma ko joxee ba mu jël lépp xam nga mu jéem a déclenché ma rocc sama tànk biñ ko mu dem. ku nekk sa kanam. waaw ñi ne sama kanam bari na damay ñaan yàlla comme maa ngi dugg bëre sama premier combat maa ngi ñaan yàlla. Ah, bi mooy sa premier combat. sama premier combat maa ngi ñaan yàlla. galaa bi ma dugg ma jël ko ah, ak jàmm salaam dugg si bisimilah rahmaan génn si alhamdulilah di gërëm sama jabar bu baax xam am nga naa soxna. di ko gërëm di gërëm samay doom. teelul baax non non garaawul. xam garaawul. dañuy bañ fo rek moo tax ñu am soxna. les deux boo ñaa. mooy daal mooy daal mooy daal waaw. man su teg sama xaalis les deux laay teg. Less 2 Boy Niang. ku njëkk a song borom. waaw ku gaaw waaw. Less 2 Boy ah. loo ci wax. Boy Niang. Ah. Less daal li ma ci xam. ñaari xale yu ñeme yu am fit yu mën a bëre. dama ciy maandu rek ba xam lu yàlla def moo xam muy loolu. Ah, Less lu gars wax. mais gars yi am naa combat. am nga combat. maa ngi ñëw tojjate stade bi yow xam nga loolu sax. kañ la lool. Euh, la waroon doon mais élection yi moo tax gars yi ravaillé ko mais léegi mu ñëw léegi mu ñëw. yomb yomb sama comment xam nga ko yomb yow maa ngi ñëw tojjate stade bi. Eh, bu lamb ja sajjee. kan moo nge moo nge mu bu weex bi Tapha le vrai Laye Thiopete Tapha ngeen jàkkaar lool noonu ndeysaan boo gisee ni mu wotoo mu doon wateef goo xamee ne zulu yi ñoo koy watu ndeysaan Tapha le vrai Laye Thiopete Tapha le vrai moo leen woon ginnaaw Laye Thiopete jël na Tapha le vrai Tapha bañ na eh ah Laye Thiopete day dóor xam nga lii nag dafa baax ndaxte Moustapha Gueye te lu toll ci neuf écuries ñooy xëccoo lii nga xamante ni nii moo di moo di tournoi tournoi de lutte avec frappe ëllëg si biir Moustapha Gueye def ko ndeysaan fam jaaroon rek la bëgg a jaaree la xale yi ndaxte bokk na ci lu ko génne laay copet jël na tànk ba jël na tànk Tapha nga jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko daan na ko jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko daan na ko waaw laay coppet waa wone woon na boppam waaw yow la yow la ooy c'est vrai yow la bokkoo ci yëkkatil sa loxo yow la waaw yo dama ko boot doole ko dàq bëre gën ko feree xale xawoon naa su ma ko jàppee làmb yi day jeex parce que li la dañoo gis ne da xeex bi lu ta da nga da nga favoriser xeex bi xeex. non dëggul ci man xeex bi noonu mais dëggul ci man ma bëggoon dama ko bëggoon daan ko. noo leen bëree. Ah? naka nga bëree ak moom kon. dama liir bëre bi rek dama ko dama wan pour pour mu xeex te xeex bi dëggul ci man ko bëree. ku nekk sa kanam. ah ku nekk bi laa bëgg a jël bu neexee yàlla. bi sifflé na kon Mbekh Ndoye mbokk yi boobu mooy quatrième combat bi yaakaar naa ne tey Moustapha Gueye gars yi dinañ seetaan lamb lamb ju bari ba kontaan mbeex ndooyo ngeem boo bu xonq bi moo nekk écurie Fass mi ngi bëri ak César Ba écurie Pikine mbooloo wax naa leen écurie yi nga xamante ni ñoo nekk ci tournoi bi bari nanu César ah César ak mbeex ndeysaan xale yi li may wax rek nañ leen di jàngal bëre. embrasse fii loo gis. kii moo war a génne boppam ci poxtaan bi rek embarqué ko. kan ci sukkee ngeen moo ngeen bu weex. waaw César. ah loolu parole de Ambroise Sarr. moo wax loolu. ma ngi ci biti ñu ngi ci biti génn nañu génn nañu Cheikh Dione wàññi na lu bare bare ci yaram wi xaw ma lan la xaw ma moo wàññi xaw ma yaram wi wàññeeku xaw ma ñàkk entraînement la xamuma lan la xaw ma lan mooy def lii ci mbër Ambroise damaa gis ni Cheikh Dione bi yoon dafa tuuti torop est-ce que tuutaay bi dina ko arranger par rapport ak Malal waa xam nga mun mun ngaa tuuti te am déplacement. ba lu ci am. mooy déplacement moo ci am solo. du xanaa mooy fente ah loolu de mooy fente ñaari loxo lay dóore César mbokk yi bi mooy sixième combat Bara Ndiaye Volcan ñu ngi mel ni ñu nekk ci lu traditionnel Ndefleng combat yi bari lool ah. Bara Ndiaye moo nekk seen càmmoñ Bara Ndiaye nekk seen ndijoor Volcan Volcan nag daana tàng ndax tey dina tàng ci euh, euh, Hippo ndax volcan dina tàng tey ci Baara daal bi am nañ ci benn mi ngi fii ci Wakam yeewoogul nag bii yàlla bu ko yàlla yee. foo foo gis volcan yi. volcan mi ngi nii boo gisee fi ñu def statue bi volcan la dafay nelaw nag. Hippo del wax jàmm. loolu kay scientifique yi ñoo la ko gën a xam. <coughs> Baara Ndiaye ah Baara Baara Ndiaye dóor na waa ji yanu na ko yanu na ko yanu na ko yanu na ko daaneel na du benn du benn. Baara Ndiaye. Baara loo wax bii de victoire bii wute naag beneen bi ah. waaw benn bi kay kontaan rek lépp victoire rek moom du ndaw parce que combat bi ne dama ñëw daan ko jël wu at wit bañ ko mu daan mu ñu dem CNG CNG jàmm sama victoire kon am naa victoire maa ngi koy sant yàlla bu baax donc nag li may wax rek mooy damay sant yàlla quoi julli si Mouhamed sant sama ñaari waajur di sant mbooloom ñi ma jàppale ñëpp di gërëm nag Pierre Ba bu baax. maa leen gërëm Père Abbas Ndoye waxal ci combat bi balaa nga ñëw Père Ba da ngeen mën xar ki nga bëreel ndax du liñ doole tax nga daan laal boo xam ne man dama di gune toll ci liggéey di liggéey yaakaar yaa yaakaar ma bàyyi yaakaar ma sama famille ñu bëri yaakaar ci man di ma ñaanal yàlla nag yàlla di ma suturaal jaaxaan du ko def yow foo dëkk man maa ngi dëkk kër ma jaañ mbëyeen kër ma la kër ma mbay xam nga Taïba Zanj Taïba Njaay Taïba Mbay ñëpp yaa ngi dëkk bay di daqaat bu baax di gërëm waa da kay lamba boole mbër yi ñuy ñaari doomi ney bu ci kenn naagu ku jum daanu gis naa Mbaye Gueye ak Robert ak Double Less gis naa moom góor Ousmane Diaw ak Samba Diaw bul naagu ku jum daanu yey doomi Fatou Mbaye góor Fatou Mbaye doomi Fatou Mbaye góor ma faali kumanda mooy samaam ni bul naagu bul ku jum daanu waaw may jooy Omar Moussa Mbaye sama baay Omar Moussa baayu Fatou Mbaye góoru sama baay ni jaayi jibe naana dama koy daxin daxin dama koy daxin la ma seen problème yéen kay waxal ak man lan mooy seen problème. leer. yow Garga de moo daan toogal. waaw même ma yeggee de Garga daan lan barki Serigne Touba. Garga sama avance ñu daan la barki Serigne Touba. ñu bëre bërew ko. ñu fuuf. doog a mën fuuf. yàlla ju suram sant samay ñaari waajur sonn naa trop mais nag mënu moon daanu tey bi ma xool li ma andi li yëpp gisee sant yàlla rek man li ma am naa ko daa bëggoon daan naa ko sant naa yàlla lu laa bëggoon mais nag comme que dama nekk si calaf maa ngi ñaan suñu borom mu raf suñu mu sutural bi ma sama cinquième combat cinq victoire dañoo dégg ñu ne Modou Lo dafa jóge Rock Énergie dëgg la wala loolu na cee wax rek ah. déedéet ana Modou ci lu mi ngi ci jàmm ak salaam mi ngi waaj waaw waaw mi grand combat ngi noonu diggante Malal Ndiaye mi nekk seen ndijoor ak Cheikhou Malal Ndiaye Cheikhou Diène waa buñ leen xoolee ñoom ñaar bu dee lutte pure la ndeysaan dinañ gis combat waaye li nu jaaxal mooy poids Cheikhou Diène Cheikhou Diène a beaucoup changé métamorphosé wu dëgg la def parce que Cheikhou Diène manu xamoon ak Cheikhou Diène mii du benn waa Cheikhou Diène te li ngeen koy gis noonu yor na drapeau chef de l'État mën a bëre lool xam làmb waaye mi ngi bëre koo xamante ni moom it champion d'Afrique la te yaakaar naa ni bari nay drapeau ci lu traditionnel yoo xamante ni moom moo ko yore muy malal te fii ñu toll moo war a représenté ci senegal ci jeux olympiques moo nekk sunu ndijoor waa malal malal Cheikhou Diène malal Cheikhou Diène bu xeex bi dee bari dóor yaa ëpp nar ëpp Cheikhou Diène dóor na Cheikhou Diène dóor na mala la koy xaar congo malaay ragal songo malaay ragal mala ngi dox mala la ngi dox mala la ngi dox la ngi dox mala la ngi dox lu ko daal mala la mala la ngi dox xoolal tànku ndijoor bi mala la ngi dox dóor na tànk ndijoor bi malal taxaw na malal siggi na sa gàtt na ndeysaan ma ngay doxaat di dem tànk ba nuuru na ci suuf mbër mu nar a dem tànk bi day nuuru tànk ba nuuru na Cheikhou Diène doon na dóor malal bëgg ko dugg Cheikhou moytul kon malal wat na la boppam nee na day xeex waaye xeex bi buntu la ciy wut malal day xeex waaye buntu lay wut ndeysaan moo nu war a toogal ci jeux yi nga xamante ni moo war a am bientôt Cheikhou dóor na Cheikhou bi muy dóor day dal mala la ngi nappatu mala la ngi nappatu ndaxte loolu nga def làmb la tadajoo dara malal dóor na malal dóor na malal dóoraat na ñoom ñaar daja nanu dóor yu daja la ah mais attention malal Cheikhou Diène tuuti na dëgg la waaye am na force de frappe te seetlu nanu borom ku tuuti toujours yax ba day diis Malal ngi bëgg accélérer combat bi Malal ndax loolu arrangé na la waaw na la arrangé na la ndax daan Malal daan na Cheikhou Malal daan na Cheikhou doole bëre doole Ambroise Malal moo daan te ngi dem Jeux olympiques loo koy wax góorgóorlu rek bañ a teggi loxoom tegu na ci raay bi ba pare. école bi moom fu waaw école bi xam nga dama yor école yor ay ndaanaan te ñu am combat. mu nekk loo xam ne du ma métti la parce que képp kuy bëre suma boy moo leen mën. waaw kon daal dafa mais est-ce que du bi li mu nekkul Dakar moo waral. non mais Dakar mais Sénégal dañoo ne Sénégal ci senegal lañ ba ou bien ñu taxu Gambie ba. loo wax ci Balla Gaye Yékini. ah combat bu neex lay doon. ku njëkk a daj rek daan. ku njëkk a daj. daan. Gris Bordeaux Modou Lo. ku njëkk a daj daan. am <laughs> phrase ah, parce que xam nga dafa sori te xam nga bëre ci ci dernière minute yi yëpp mën na cee xew kon booy wax na wax loo xam ne lu wóor lay doon dernière minute yi bu ñu lewtoo rek mun ngaa wax à peu près fan la affaire bay dem. booy ñaar Double Less 2. ah. combat la aussi. Cheikh Sarr ñu ngi lay nuyu. maa ngi la fay Bekay. Cheikh dañuy déglu as dañoo dégg assemblée générale des amateurs. te dégg nañu di candidat nga ji ñu bëggoon a xam lu leer. waaw candidat la Bekay si bureau des amateurs. ñu ngi waajal AG bi AG bi ñu ko prévoir le 15 avril. le kañ. le 15 avril. foo toll nag yow lu tax nga soxla yor amateur. no xam nga amateurs yi ñoo ma ñoo ñoo ko ñoo ko bëgg ñoo ko sabab. je crois que ñoom suñu waxee ne doy a leen ban ni coach wax su ma ñëwee xasee dugg si stade bi coach wax ñu ne Cheikh Sarr Cheikh Sarr donc man mënu ma lu may rafetlu loolu. leen dencal. lu ma leen dencal nag bëri na yaakaar ne bés ma yàlla dimbalee ban fal ma danaa def loo xam ne yaakaar naa ne danañ danañ koy waxaat dana def loo xam ne lu fi jur jaaj defoon naa jéem a def lu ko raw parce que c'est vrai que Doudou Diouf tamit. doxal noonu mbir mi nañ waxante dëgg parce que Doudou durant période bi fu nekk vraiment doxal na bureau bureau des ba léegi ku nekk bëgg ko donc nag man fu ma yàlla tegee ban teg ma si bureau bi danaa si defal sama yenn sama seen lay kattan. yaa ngi taxaw ak Adama Bopp Adama Bopp moo nekkoon secrétaire général Adama candidat nga wala. non non ñun benn candidat la ñoom mooy Cheikh Sarr man duma candidat. mais toujours candidat pour le poste de secrétaire général. incha allah rabbi je suis candidat pour le poste de secrétaire général.